ñu ngi am mbégte tey dalal gan premier ministre Idrissa Seck maire bu diwaanu Thiès di président parti bi di réew mi euh, ci waxtaan wi nag ñu ci ànd ak suñuy naataango yu observateur waaye it yu télévision Futur Média euh, di ko ziar bu baax moom kilifa gi ak teewaayam di ziar mbooloom kilifa yi mu àndal euh, fii ci rajo Futur Média laata waxtaan wi nag dañuy bàyyi rek directeur général bu groupe Futur Média Mamadou Ibra Kane mu daal di def mot de bienvenue dalal gan gi laata ñuy door waxtaan wi kon monsieur le directeur général vous avez lool. jërëjëf El Hadj Assane euh, maa ngi leen di nuyu di nuyu premier ministre Idrissa Seck ak euh, auditeur u euh, rajo RFM téléspectateur u TFM ak lecteur u l'Observateur Monsieur le Premier ministre et président de Réumi, bonjour. Bonjour. À travers votre personne, nous saluons l'ensemble de vos collaborateurs ici présents et vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici au groupe Futur Média. L'heure n'est pas au discours aujourd'hui, mais plutôt à un jeu de questions-réponses avec nos intervieweurs, un exercice que vous affectionnez. Sur ce, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Pour ce 25 mars et, et vous laisse euh, euh, Média pour euh, le démarrage de cet entretien. Merci. Merci. jërëjëf euh, directeur général groupe Futur Média Mamour Ibra Kane ñu gërëm également son adjoint Birane Ndour ici présent ak euh, suñu naattango yëpp Charles Faye tout le personnel du groupe ñu ngi fi teew euh, monsieur le premier ministre ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay gi. ñoo ngi lay fay ji Assane di nuyu Mamoudou directeur généralu rajo bi ak seen naataango yëpp di nuyu askanu Sénégal yëpp bi ñuy déglu. di rafetlu sag bi ngeen sagal métier mu jafe mi ngeen di def ndax métier journaliste di siiwal xibaar te doo ko yàq di jottali waxi jàmbur te doo ko yàq li ci aju ci yiw ñoo ngi ñaan yàlla mu defal leen ko te bàyyi leen ak seen xel ngeen di bàyyi xel ci importance bi nga xam ni seen métier mi am na ko ci démocratie Sénégal jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla ñu yàlla boole ñaan yëpp fàttali suñu mbokk déglukat yi ne waxtaan wi xaaj bu mujj bi ci français incha allah lay doon ñu dooree wolof gi monsieur le premier ministre ñu ngi tey ci at bu njëkk bu euh, Macky Sall nekkinam ci bopp nguuru Sénégal euh, yéen sax buñ nee bilan ngeen ni teel na waaye ndax mun nga ñu defal bilan d'étape euh, ci sumb bu njëkk bi ci li nga xamante ni mooy yoonu yokkute gi ngeen diggoon askan wi foog nga ni ñu ngi ci yoon woowu bu yokkute gi. Alaaji jërëjëf ci laaj bi. nga may ma balaa may tontu ma tàmbalee li nga xam ni mënula ñàkk te mooy sant sama boroom mi ma musal ci pexe yi nga xam ni bu antu woon jataayu tey bi du egsi di ko sant cant gu wér moom mi yayoo cant tudd alxamid di julli ci yonentam bi muhammad aleyhi salaatu wasalaam bi mu ne nañu ko ko santal ndax bi mu tuddee Hamid dafa tudde Muhammad Muhammad di sant di gërëm bu baax peuple sénégalais bi yépp rawatina ñi ma ci yàlla booleel ñuy samay àndandoo ndax ñoom ñépp ñoo def dànk doon bouclier pour aar ma ci pexe yi taxaw ci taxawaay bu mat sëkk yan xeeti pexe la danaa ci yegg si incha allah wante nga may ma ma eggale cant gi ndax mooy li ma gën a ñor di leen sant ci taxawaay boobu ñu am peuple sénégalais dafa bañ injustice foo yëkkatee injustice rek maanaam di jëmale ci nit rek peuple sénégalais bi yëpp ay taxaw wante may sant ñi nga xam ni ci seen wéetaayu kurus ak seen wéetaayu der mel ni soxna su tedd sële ca cees Thiès Adja bu Dia yal na yàlla yokk leeram nga xam ni da daan wéetal boroomam di ma ñaanal ak ñeneen ñu mel ni moom ak sama àndandoo yi nga xam ni ci wàllu xam-xam bi nga xamee ni xeex bi tar na ba tar dañu ma daan yónnee ay xalaat yoo xam ni yuy dalal xel la kenn ci ñoom bërki démb rek laa doon yëraat la mu ma yónnee woon muy muy bataaxal bu rafet bu Victor Hugo bindoon ca jamono tudde ko ultima verba euh, nga xam ni daf cay wax ay wax yu yéeme yoo xam ni dafa jëm ci dëgëral pas-pasu nit bu nekkee ci komba di sant ñu mel ni ñoom Adja Nafisatu Diop Cissé dama koy wax toujours ne xamul lu Nafisatu di tekki Nafisa mooy li précieux maanaam li gën ci cër yi mooy nafisatu ndax njàmbaaram ndax ngoram ndax nangoo ñàkk teraanga ngir sàmm sàmmal ay doomam turam wi nga xam ni mu ngi ko jële ci ay waajuram ah. di gërëm sama compagnon yépp mënuma leen a lim ndax kon émission bi ci lay yem di gërëm samay avoca yi nga xam ni ñoo ma doon jàppale ñoom maître Boukounta Diallo ñoom maître jibi Diallo sama jigéenu bopp bi Adja Borso Pouy ak ñu demee ni ñoom mënumaa citer ñëpp ñoom maître Sidiki Kaba ñoom ñëpp dañoo ngemb woon bokk ci ci ci xeex bi di sant bu baax di gërëm dëkkandoo yi ma yàlla booleel fële ci point E nga xam ni ku naqaree dëkkal la ndax xew-xew yu bari yi coow yi chauffeur yi garde corps yi meeting yi tëgg yeeg yu kenn xamul mais ñu muñ ko muñ bu rafet ku ci mel ni sama tàntay bopp ji Adja fi Mbay euh, nga xam ni man moom ñoo bokk Serigne Cheikh sama bàjjan soxna maam si moo bàyyi ko Thiès ñëw teg ma ci loxoom euh, ñu dëkk-dëkk bu rafet euh, tonton Belal lii général Belal lii nga xam ni sama nijaay bu moo nekkoon aide de camp am mooy ki ma may ndey penda moo tax ma koy ñaanal yàlla mu yokk leeram moom itamit eh, ndax eh, defal na ma lu rëy ci loolu ah, li waral ree ji mooy gërëm yu metti yi nga gërëm fan yi également ndey penda waaw gërëm yi doyul ndax ndey penda li ma yàlla defal ci moom mooy li ma koy ñaan bis bu nekk rek mhm. rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin mhm. yow sama boroom na nga ma defal ci soxna yeeg njaboot gi ñuy sama mbégtey bët mhm. faf yàlla def na muy sama mbégtey bët di sama tey xol moo tax duma mën a yem ci ngërëm lii donc yàlla na yàl na ko yàlla yokk yiw si vous yokk ko ci njabootam si vous le ñemeeguma ko <laughs> ñemeeguma ko alaaji Asan xam naa bis bu ma bis bu ma yàlla mayee fit wi yow laay yebal <laughs> ndax wante wante bu bu ma yàlla mayoon fit ma koy xalaat dama lay wax fi ma koy wute ji fële ca poroxaan ca daaray suñu maam maam jaara buso ndax am na fa ay turandoom yu tari alxuraan bind ko ci seen loxo foofa moom ku fa am ñaareel da nga yeewu da yeewiku ku ko wuti yeewu yeewi bu ñoom vivi jeeju yi ak euh, Euh, soxna landing sawane si ñooñu defoon seen yeew yeew yooyu dangay ngay sànku bu ma doon wut ñaareel daal foofa laa koy foofa laa koy wute ji ñu nga ca di di di sant bu baax toujours ci biir ci biir cant gi ah. euh, dëkkandoo yi di sant naturellement sama mbokki bopp yi waa cees nga xam ni li ñu ma defal dama wax ni tant maa ngi dese benn yi ci kaw suuf rek li ma waroon mooy ma jël noyyi googu di leen ko sante ndax lu ne def nañ leen ko lu ne xañ nañ leen ko wante ñu ànd ak seen ngor ànd ak man bilan bi Alaaji Asan xam naa ni yàkkamti nga ko wante mën naa yem ci benn baat mooy doxagul waaw doxagul na ma ko waxe woon ca tabaski ga bi ñu ma laajee dama ni doxagul li ñu li diggaate egsee guñ ci wante booba dama ni woon teel na pour defar bilan. Mhm, tey lay wax. ndax dañu fal président de la république d'abord ma koy ndokkeel ci anniversaire am bu njëkk ci boppu réew mi ndax teraanga gënu ko mag 13 million de sénégalais ñu tànn la ne la yaa leen di jiite ca biir njaboot googa sëti Serigne Touba nekk ci. sëti alaaji Malick nekk ci sëti maam Limaamu nekk ci sëti Buukunta Njaasaan nekk ci ñu baax ñooñu ñëpp nekk ci war nga bàyyi xel ci li la fi teg jamono bu nekk di ko bàyyiloo xel ci loolu mu xam ni cër bii ko yàlla jox lenn rek la ko ci sant mooy yërmande jëm ci askan wi mooy xar tànku tubayam saafara seeni jafe-jafe bu mu ci gis boppam bu mu ci gis soxnaam bu mu ci gis njabootuk boppam na seet askan wi delloo yàlla njukkal ci teraanga ju rëy jooju mu ko defal ne ko yow bu ñuy lim ci histoire ñi jiite Sénégal ci nga bokk mhm. donc bilan bi moom mooy doxagul mhm. li tax doxagul mooy xale yi ñi ci amagul liggéey bari na ñi nga xam ni ñoo ngi waaj a ñàkk seen liggéey bari na usines yii di defar diwlin ji amuñu gerte gu ñu nal ci chômage technique la ñu jëm industriel yu bari ña doon defar tamaate ji tëj nañu loolu lu mat a bàyyi xel la ndax li am solo ci économie mooy wutal nit ñi xëy ñu liggéey ndax ku xëy rek sa soxla nga bëgg a faj te ñett rek la nit mën a jote ci alal ju mu faje soxlaam benn bi mooy mu liggéey ñu fay ko salaire wala mu investir boog am dividende boobu mooy bi ci gën a lew mooy bi ciy jox nit ki dignité bi ko yàlla jox ca njalbeen ñaareel bi mooy nga tàllal loxo ñu may la dagan na wante mën naa jur xeebeel ndax dafa am ñuy wax ni loxo bi joxe toujours mooy féete kaw bii tàllal ñetteel bi mooy nga sàcc jëlloo moomul booba moom daf lay tàggaleeg dignité day tax non ñu yeb la mais day tax askan wi sànni la ca xaj donc nit ki li nga ko war a njëkk a defal ci wàllu économie mooy nga wutal ko liggéey te mbay maa ngi fi napp gaa ngi fi càmm gaa ngi fi artisan yaa ngi fi ci loolu lañu ñu war a jublu ndax Macky bi mu egsee dafa tiim ñaari liggéey benn bi mooy sumb fóot ñaawteef yi weesu mu fóot ko wante nag nit ñii di xaar ku leen sàng liw bi di leen bëgg rey na leen bàyyi xel ndax le temps muy fóot póot mi di wow mhm. ah sedd bi mën naa gaañ ñu bari du donc euh, la nécessité ngeen jàppale ko ci ndax du liggéey bu yomb waaw waaw yomb ah jàppale gi dafa am sart ah. du liggéey bu yomb de noonu laa ko ko waxe woon ca Thiès ba mu ñëwee seet si ma dama ko ni ñëw gii nga ñëw jaru ko woon ndax ala alin yow lay jàppale puisque jàppalewu ma la yow jëmmi Macky Sall ji damay sàmmoonteeg sama kàddu ga ma waxoon ndax dama waxoon ni képp koo xam ni ci opposition bi yaay candidat bi raw yow laay jàppale ma ne ko jarul ngay ñëw sama kër wante dama lay xamal leen duma la encombré te bul nangu ku la encombré ndax liggéey bi lay xaar du liggéey bu yomb de indiwaat jàmm Casamance jox ndaw ñi liggéey defar suñu digganteeg suñuy dëkkandoo Gambie Guinée Bissau moritani defar suñu digganteeg Afrique defar suñu digganteeg àddina bi du liggéey bu yomb yen bu diis la doxal njub ci réew mi doxal njub ci réew mi doxal justice nga xam ni kenn dootul ragal ñu tooñ la tooñ nga wéy ngir sëg néew doole ndax da nga jël doole état bi aare ko kooka ñu néewal doole du liggéey bu yomb ma ne ko donc du ma la encombré bul nangu ku la encombre ma ne ko ñaareel bi président de la république du cër bu ñuy séddoo kenn rek a ko yor ni yàlla wéete ci nguuram gi noonu la président de la république wéete ci cëram bi ma ne ko yow dong yaay dogal te yow dong yaay assumer ji conséquence li ngay dogal wante nag ci biir dogal googu ndax yow lañu dénk nga définir politique de la nation yow la ñu dénk nga wax réew mi fi nga koy jële ak fi nga ko jëme yow lañu dénk lépp luy alal ci réew mi ci sa loxo la tege suuf sii bu ko sa kër googi neexoon mën na ko nangu suba teg ko ci intérêt publique mooy joxe suuf si mooy mooy valabalal titre foncier yi jën yii ci géej gi ku mu joxul licence doo ci napp ñun ñëpp a ko bokk de moo ne rab yii ci àll bi ku mu joxul permis de chasse doo ci doo ci rëbb donc nguur dafa diis boo ko yoree da ngay xam li nga yor lan la doo nangu ku la encombré. da ngay wéet ak sa borom ñaan ko mu guidé la. monsieur le premier ministre daanaka ñu ngi ci ponk bi nga xam ni Alassane Samba Diop directeur RFM loolu ci yàndal Alassane ci wàllu question de l' emploi euh, ak ñàkk xëyum ndaw ñi également. waaw monsieur le premier ministre ñu lay nuyu di ci teewaay bi nga teew ko ci rajo Futurs Médias. Mhm. comme ni bi soxal na xale yu bëri ndaxte sénégalais yu bëri ay ndaw lañu bu ñu gisee ci réew mi ñëpp bu ñu génnee mooy dañoo bëgg a xëy mhm. mbirum chômage bi mbirum emploi bi lan la seen coalition bi di def boobu ba léegi pour Sénégalais yi xale yu ndaw yi bëgg a xëy am xëy mën a jàppale seen njaboot. xam nga Alassane xëy li ci jaadu mooy ku ne yaa ko war a wutal sa bopp ku ne yaa war a xëy bu fajar jotee nga xëy loolu la xëy di tekki nga xëy wuti ah, ca jamono mbaya fi newoon. gis nga ñun ñii ñëpp suñuy maam dañ daan rëbb di lekk wala ñuy napp di lekk wala ñuy witt ci doomi garab yi loolu lañ doon wax cueillette chasse ak loolu bi jamono soppeekoo ba nga xam ni période interglaciaire am na géej gi euh, euh, gën a wàññeeku désert feeñ ñeenti endroit ci àddina bi la yàlla def ay fleuve ay déeg yoo xam ni nit ñi mën nañoo daw dem fa comme àll yi euh, wàññeeku na muy le fleuve Nil moo jur Égypte moo jóge ca lac Victoria ca Ouganda dem ba Égypte muy Tigre et l'Euphrate foofu boori Bagdad yooyu ak Irak muy fleuve Indus Inde ak fleuve Chine fleuve jaune bi jur Chine ñeenti civilisation yooyu ñoo njëkk a am ci jamono ay nit dajaloo ci ay bërëb inventé agriculture ma nga amee ca Égypte comme dañ daan wër di rëbb ñu ne mënatuñ ko ñu ne nañu sàmm léegi jur gi looloo jur élevage dañ daan wër di witt gisatuñu garab gu ñu witt ñu ne nañu jéem a bay lu ñu dundee loolu moo indi agriculture mooy néolithique donc pexe yooyu ba nañu organiser woo premier état daal di juddu ci Égypte en moins 2800 avant Jésus-Christ maanaam mille ans lu jiitu nekku yonent yàlla Isa donc xëy moom ku ne yaa koy wutal sa bopp boo ko mënula wutal sa bopp keneen a koy wut jox la mooy entrepreneur yi moo tax secteur privé bi ñu mat a bàyyi xel lañu ñu mat a dimbali lañu que ki créer entreprise am yow mii fooy xëy RFM TFM Youssou Ndour a ko samp Alaaji Asan di ci liggéey du di ci liggéey donc entrepreneur bi nga xam ni am na xarañu samp lu joxe liggéey kooku la ñu war a bàyyi xel yombalal ko lépp loolu mooy libéralisme yombalal ko initiative bu demee nag ba raw ba am alal ju ne gàññ nga ne ko alal ji nag danaa ci tibb lu ma saafaraa soxlay ñi néew doole te yàlla mayu leen xarañ gi nga am yow da koy daal di nangu mooy impôt 30 pour cent wante bi nga xamee ni mu ngi nekk ci course di daw war a raw doo ko diisal doo ko teg handicap yu diis da nga koy oyofal may ko mu dem liggéey lu gaaw liggéey lu bari lu ne gàññ nga yombalal ko ko gunge ko fu mu dajeeg obstacle nga gaawantu yow mi yor dooley état dindil ko obstacle bi ne ko ay ca fexeel ba bu la chinois bi raw fexeel ba bu la américain bi raw fexeel ba bu la russe bi raw nga promouvoir le secteur privé puisque emploi yi état di joxe du loolu mooy créer emplois xam nga ne way jël naa 5000 fonctionnaires 5000 ci 300000 yu taxaw di wut liggéey du dara ñiy créer emploi mooy secteur privé loolu na ci ñëpp bàyyi seen xel xam nga te sénégalais dafa entreprenant puisque soxna si yeewoo géejawaay amul sax lu mu jënde pañeb jën bu mu jaay mu jël rek benn bantam daaj ci ay pont dem toog ca marché ba ku jënd sa jën mu waasal la créer na entreprise boo ko dooleelee entreprise de prestation de service boobu nga xam ni waas jën mooy mooy mooy liggéeyam. Mhm. entreprise boobu mën naa jur yeneen i liggéey. waaw mais yéen lan ngeen def pour dooleel ñooñu. waaw xam nga mu gën a concret xam nga xale yi ñoom xam nga xam nga mooy li ma la wax mooy li ma la wax. waaw li tax ma ne la doxagul. dama bëgg nag ñu jublu ci liggéey bi ndax at jàll na. ci naka lañ ko ñeenti at a ci des. te benn bu mujj bi atum élection la. liggéey ca du yomb donc ñetti at a fi des. man nag nekkuma ci xelum Macky sal bi ñu dee ànd daf ma woo këram bi ñu ko falee mu ne ma grand frère ñun ñaar ñii ñëpp yàlla mënoon naa dogal ñu ab lay Wade bu fi jógee te yow yaay sama mag yaa ma accueillir ci partie bi yàlla dogal na man lañu fal ma bëgg mandat bi ñu ma jox juróom-ñaari at la wante danaa ko def juróomi at juróomi at yooyu dama bëgg au lieu nekk fii tojante ay bopp ñu ànd ko liggéeyal askanu senegal ma ni ko loolu day dinaa ci sawar sant yàlla mi la xelal xel moomu ndax liggéeyal senegal rekk moom a ñor wante nag dafa am sart bu war a am ci suñu diggante mooy xamuma benn ànd buy am njariñ wala muy yàgg bu lalewul ci dëgg dëgg gi mooy yow la sénégalais yi fal yow yaay nommé aux emplois civils et militaires yow yaay définir politique de la nation bu la neexee boo ciy dogal nga laaj ma bu la neexee bañ maa laaj boo ma laajee ba ma wax la bu la neexee jëfe bu la neexee bañ a jëfe ndax sama xalaat ba ma lay jox day daje ci sa bopp ak yeneeni xalaat yoo xam ni fa ñuy bàyyi koo sax mën naa koo bañ a xam mën naa koo bañ a yëg donc la ngay dogal moom du bet bett wante yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo la ëpp maqaama moo la ëpp xam-xam yàllaa ko doon wax yu directement wante daf ko ni ci mbiri nit ñi moom boo ciy def na nga diisoog ñoom donc del diisoo du tere dogal bi ci sa loxo ci sa loxo la nekk donc est-ce que diisoo boobu dafa ndànk diisoo boobu moo des tax amul ah xëy na ñàkk jot la xëy na ñàkk jot la puisque chef d'état bu bees la moo tax Euh, li ko war ci àddina bi dafa yaatu mu ngi nii jëm Mauritanie ci OMVS bëri dana dem Durban dana dem war a xamanteeg chef d'État yi lu mat téeméeri réew ki nangam donc jotam du yomb du doon lu oyof wante daal diisoo bi des na te la ma ko waxoon ca njalbeen mooy lépp lu ñu diisoo boo ko defee comme dana ma biir ni day dëppook njariñu Sénégal loola dama ciy def soutien cent pour cent loo def te diisoo wuñu ci ma am ca xalaat bu waroog sa bos bu ñu ma laajee sama bos laay joxe du ma jéem a defar sa bos loolu moo tax ma ni doxagul Alassane ci ponk boobu Babacar am na ci xalaat naka noonu xalifa jaxate ginnaaw Babacar waaw euh, dañ bëggoon laaj euh, premier ministre Idriss Seck ba xam euh, nee na yëf yi doxagul. ndax Macky Sall ak i gaayam nuru nañ ñu nar fas yéene doxal ci lu lu lu gaaw ak itam dégg nañ ko ci tabaski gi nga junj sànq moom ba mu jullee grande mosquée ba noppi dani euh, li nit ñi gis ne gisatuñ xaalis bi xaalis bu bon bi moo doon moo doon moo doon moo doon daw ci réew mi laata muy falu euh, nee na nag loolu lañ dàkkal ndax jàpp nga ni li réew mi taxaw loola aw aw lay wu doy la ci ne xaalis bu bon bee fi nekkoon mu ñu dindi ko fi. waaw déedéet loolu doyul ci lay. réew mi daal doxagul ñëpp ci teg bët xaalis bu bon bi rek taxul dafa doxagul euh, li nga xam ni euh, laaj nga ma ko mooy yéene yi defar ji moom aw ci sikki sàkk bir na ma ni Macky Sall saa yu xëyee bëgg a defar mu ngi ci xelam puisque mooy li ko jig ko jig moom du buur dañ koo fal dañ koo dénk bis day ñëw mu taxaw ci ñi ko dénk ne leen dénkaat leen ma donc dana bàyyi xel ci war a jéem a defar donc awma sikki sàkk ci yéene ji wante ci doxalin wi foofa la dese puisque boo ñëwee ci ci ci situation nga ñëw ci économie boo xam ni dafa am fu mu toll foo ko fekk mu am déficit budgétaire bu ñuy wax naan 6 pour cent la am situation bu ñu ko fekk bu fekkente ne sa dogal bu njëkk ci wàllu koom-koom mooy damay réduire déficit bi maanaam li état bi di dépensé dama koy réduire yaa ngi rey askan wi parce que économie croissance ñetti pôle la ñoo ko yor pôle bu njëkk bi mooy nit ñi yow ak man ñiy jënd ci bitig bi ñaareelu pôle bi mooy entreprise yi secteur privé bi ñetteelu pôle bi mooy état bi ñooñu ñooy jur croissance boo fekkee ñaari pôle yi loof yow mi ñu yaakaar ndimbal état bi nga ni man it damay freiner réew mi taxaw erreur bi foofu la ndax accord bi ñu njëkk a signé ak FMI baaxul d'ailleurs la ca la ñu ca wax du ñu ko jëfe ndax dañu ca wax ni dañoo nangu dañu yokk électricité bi génne subvention yi loolu lañu ñu mais Macky nee na du yokk courant bi parce que moo diggee woon wàññi dundu gi loolu danaa ci ñëw donc erreur tactique bi foofu la maanaam koom-koom ñetti fas la ñetti moteur moteuru ménage yi mooy yow ak man ñii am salaire di jënd loolu mooy consommation deuxième moteur bi mooy investissement entreprise yee koy def ñiy tabaxak ak ñi ñiy bay ak ñiy sàmm ak ñiy ñooñu ñetteelu moteur bi mooy état état dafa yaatu yaatuwaay goo xam ni. Mhm. am alal joo xam ni 2000 milliards lay dépensé par at. deux mille milliards foo ko sotti njëriñ war a feeñ boo nee nag da nga koy freiner te ñii ñaar ñoom loof fas wi taxaw. très bien laata xalif monsieur le premier ministre askan wi déglu RFM jamono yi ban compréhension la ñu mën a am ci say waxin ak sa taxawaay ca nga bokk Benno Bokk Yaakaar waroon assumer li ngeen fi def ba fii. très bien Benno Bokk Yaakaar li ma ci boole laay leeral dama wax ni bi Macky Sall ñëwee sama kër di wut deuxième tour dama ko ni soxlawul woon ngay ñëw ndax du yow laay jàppale sama kàmm sama kàddu laay sàmm maa waxoon ni. ku jiitu ci ñun ñii rekk ku dul Ablaye Wade ku ci jiitu rekk danaa la jàppale ba mu faloo ba pare woo ma këram booba toxoogul pale wax ma lii mu ma wax ma ni ko li nga xam ni lii moo tax may bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñaar la benn bi mooy dañoo jóge ci fitna ju rëy xeex bi ñu xeex pour Ablaye Wade jóge fi dem place de l'indépendance ñu ñuy dóori grenade lacrymogène waa àddina bépp ñëw di wàllu si waa Al ñëw seen xariti média yi ñëw Obasanjo ñëw xeex boobu ay nit dee ci Mamadou Diop gi démb ca Mbuur yàlla na yàlla xëpp ko yërmande euh, yokk ko njëgalam xare ko aljanna ca la faatu ak ngeneen ñu ci jële ay gaañu gaañu mën na ko fitna woowu dafa tax Sénégal soxla ak dal noppalu ma ne ko ñaareel bi suñu sous région bii waa Côte d'Ivoire jubooguñu Mali ngay tàkk Guinée Bissau di tàkk terorist yi wër ñu narcotrafiquants yi wër ñu ñun classe politique gu Sénégal bu ñu amul fullay booloo ba def benn atmosphère de paix de tranquillité et de sérénité bu la may nga sumb liggéey bi amal njariñ askan wi maanaam wàññi dundu gi wut liggéey xale yi saafara délestage yi saafara inondation yi loolu dafa doy sëkk am xëy sëñ bi donc loolu boo ci boolee war a indi coow boole ci coowul ñi ñi nga jiiñ ne dañoo jël alalu askan wi ñu weddi ko nekk ak yow ci bërti bërti ba la xewoon ak ñeneen ñoo xam ni cantakun yi ñu wax ne ñoo ñoo toj oto yi nit ñi fële ca place de l'indépendance ma ne ko donc atmosphère bi ñu war a créer en tant que classe politique nationale mooy atmosphère u jàmm atmosphère u dal lool yi moo ma dugal ci Benno Bokk Yaakaar ak it fexe ba li ñu nam ñun ñëpp muy askan wi jariñu ñu nekk ci man sama parti nan la tudd ah Assane <laughs> mu réew mi lu tax mu tudd réew mi mooy jamono bu ne damaa bëgg di fàttali sama bopp di fàttali ñi ci des Macky Sall bañoon na tur woowu de waaw danaa ci ñëw <laughs> dana danaa ci ñëw euh, li tax ñu tudd réew mi mooy di fàttali suñu bopp di fàttali nit ñi jamono bu nekk ne lenn rek a war a ñu war ñoo ñor lenn rek a ñu war a ñor mooy réew mi c'est-à-dire décision xam nga Amérique lu tax ñu am doole décision bu président bi di jël collaborateurs yi phrase bi ñu koy mujjee wax mooy this is in our vital national interest lii ñu la wax nga def ko mooy li méngoo ak suñu tigi tigi njariñu réew bu dee dem bombarde bombarder Irak la du hésiter bu xisee gëm loolu du hésiter donc ñun looloo tax ñu tudd réew mi Macky Sall bañoon na ko sëriñ Cheikh sama turandoo almaktuum dafa wax ni golo la walla wala wala bukki dañu ko romb biir bi di metti ñu ne ko loo lekk mu ni sump ñu teg ci ay fan ñu rombaat ko muy fo di ree ñu ne ko waaw loo lekk mu ni sump sump ko feebar sump ko wéral makee bañoon tur wi ma jox këyit <laughs> kon juboo nañ jërëjëf monsieur xam naa ni bu mu amoon sañ-sañ bi ne ab sekkeen la <laughs> golo golo ab sekkeen la Khalifa Diakhaté laata ñuy ñëw ak euh, Antoine Diouf ci wàllu réforme institutionnelle yi euh, jërëjëf Aja San euh, ñu ngi lay dalal jàmm di la gërëm di la nuyu Euh, sama sama laaj mu ngi tàmbalee ndaar yi li olof naan wiiri jaari ndaari yi laay tàmbalee. Euh, li ma bëgg a xam mooy li la yitteel sa Seck. ndax mooy as njariñu askan wi. walla bopp réew mi. place Macky Sall. parce que euh, wax nga ni bésub dénkaat leen ma dina ñëw. ndax fa nga koy xaar. walla parce que bu ma déggee sa demarche sol noo dalam ñëw si yow. ne nga mbir yi doxagul wala tàmbal tàmbalee goo dox. Mm-hmm. wax nga ko ca tabaski bi yëpp bamtuwaat nga ko. Mm-hmm. waaw anna lan moo la tee. Mm-hmm. ni ni ay doomu aadama di tënk di la jox ngir ngay jariñu nga tënkee noonu. joxe ko ni. ngir ñaruñu askan wi. lu mooy di ko jox dig daje ca ba bu dënkat leen ma jotaatee loolu mooy sama préoccupation. merci. jërëjëf xam nga danga nga ni wiiri wiiri jaari ndaari. Mm. man damaa wiiriwul. ndaari rek laa toog. moo jërëjëf moo tax ah. danga ma fa fekk. Ah, <laughs> li li ma ñor ci ndaari. xam nga fuy ndaari. Hmm. mooy keppaaru sa boroom. man indiwuma sama bopp àddina. munuma fi téye sama bopp bu àpp bi jotee. ki ma fi indi dafa am lu ma wax lu leer nañ loo xam ni du ma ci di ko bàyyi xel. daf ni ma xalaqal mawt wal xayaat. li yabluwakum ayukum ahsanu amala nee na man maa man maa bind dee ma bind dund ñu ne ko ah loolu amul sens bi dund pour dee juddu pour dee amul sens mu ne ah dafa am lu may seetlu damay seetlu kan ci yéen moo gën a rafet ay jëf kan ci yéen moo ëpp njariñ askan wi man loolu moo ma ñor jamono ju ne moo ma ñor en tant que père moo ma ñor en tant que fils moo ma ñor en tant que mari moo ma ñor en tant que xarit moo ma ñor en tant que entrepreneur moo ma ñor en tant que ndongo daara moo ma ñor en tant que maire moo ma ñor en tant que président de la république ban station laa ciy toog ñoruma puisque du sama mbir ndax li ma gëm mooy la mu ca teg tutil mulk man tasha wa tanzirul mulk mimman tasha nee mooy joxe nguur moo koy bif ci ku ko neex bu jotee xam nga nguur daf koy bif la wax waaw Ablaye Wade mooy na ci bataay yi de lu ne daj na ko mais da koo bif Mandela moom ak Senghor amoon nañu xelum delloo ko ba ñu yégee ni jot na wante kële dafa mooy mu bif tutil mulku man tasha wa tanzirul mulku la wax daf ni daf daf koy bif bu koy nangu donc joxe gi loolu ñoruma xam nga dafa am ñu bari ñuy wax way Idriss dafa bëgg a nekk président et cetera dama jàpp ni président station la boo xam ni bu ma ca toogee mu amal réew mi njariñ loolu rek a tax ma bëgg faa romb mais du ma fa sax bëgguma fa sax c'est pas ma préoccupation fondamentale ma préoccupation fondamentale c'est de servir c'est de produire le maximum de bienfaits dans le temps qui m'est imparti par mon Seigneur et dont j'ignore la durée donc comme xamuma ban jamono la ma may damay seet rek xoolal yonent yàlla Isa 33 ans rek la ko may mu bàyyi fi bible évangile xoolal Alexandre le Grand 33 ans rek la fi def ci kaw suuf conquérir àddina xoolal Muhammad alayhi salaatu wa salaam 63 ans rek la fi def bàyyi ñoog alquran xoolal soxna maam jaara Buso yaayi Serigne Touba yal na yàlla yokk leeram tas ñu ci barkeem 33 ans rek la fi def bàyyi ñoog Serigne Touba kooku. ma wax la lenn ci ambition ba ñu koy waajal mu war a dem suñu kër maam Momar Anta Sali yàlla daf ko mayoon tuuti barke ak tuuti ci ak naqari deret mbusoo be gépp daje taaj soxna maam jaara ci waxin mu nekk xale ñu koy yepp di ko wax fële nga jëm daara la nii lañu fay sàkkoo ji barke di ko jox tegtal ci ay soxna yu nekkoon foofu yu ñu rafet yu ñu rafetlu nañu yore seen kër ba ñu waxee ba pare nijaay yeeg frère yi ci wàllu yépp daf ne leen ñii ngeen may wax day ay soxna yu baax lañu wante man day soxna Maryama nday Iisa na Maryam ak soxna aminatu ndey muhammad alayhi salaatu wasalaam bu ma maase woon ak ñoom jamono danaa nangoo bokk ak ñoom boroom kër def sama jom ci ñu bañ maa gën doom xoolal loolu sëriñ bi soxna su bawoo bawol fii diggante naawel ak euh, poroxaan ñu lay ñu lay yépp ci nga war a dem ci sa boroom kër yow nga jël bi yàlla sàkkee jamonoog léegi ñi fi gën nga def leen nawle noonu la ñuy amee ambition man sama ambition du nekk président de la république sama ambition mooy fa gaañu baax ña teg seen tànk bi jamono sosoog léegi ca aadama ba ci muhammad ba wàcc ci ñoom Seydil Hadj Malick ma jéem faa jaar waaw lii xam nga defal ndànk rek mm-hmm. xam nga bi tubaab yi dee sonal Serigne Touba jàppe ko prisonnier lu mu leen wax asiiru maxal abraar daf ni ñoom ba ñuy njortu ne seen prisonnier la booba maa ngi dox ànd ak gaañu baax ñi maanaam talu leen coono yañ ko doon teg mooy ba ma gars yi yóbboo rëbës rek taluma leen <laughs> taluma leen donc l'ambition elle à cette hauteur puisque ce que ce que vous devez vous rappeler comme humain comme homme, comme être adamique, mm c'est que vous êtes les représentants de Dieu sur terre. Tant que vous ne faites pas les choses comme Dieu les fait, vous n'avez pas atteint votre limite. On est bien d'accord. Voilà. Mais li nga xam ni mooy sama préoccupation ba tey mooy démarche bi maanaam. gunge nga woon nga ko ni ki ni nga ko diggee woon wàccoo nga sa baat. mooy ku jiitu dana ànd ak yow. sa ça waaw lu tee nga ni tey nga gunge ko lu mooy nga ni bésub dénkaat leen. sama préoccupation mooy. loolu yaa pour juste sama question. loolu sama préoccupation mooy ana lu te tey ni nit di bind di la jox nee nga ngir nga àggali sa démarche bi nga entamé. Mhm. ana lu tee nga bind au lieu ngay xaar ñu ñëw si yow nga dem diisoo ji ngir. Euh, njariñu réew mi ngir yoonu yokkute bii mu ne sumb na ko daal di matale lu mooy nga toog ne matagul. loolu marché mooy son bi waaw xam nga laaj bi. da laaj lu ma wax. man loolu nga wax yow yaa ko wax man waxuma ko de neew ma damaa toog di xaar mu mu diisoog man. ci wax ko. ci wax ko laa dëkk de. Mm-hmm. xam nga damaa dem France. sama xarit yi nga xam ni. ñoo doxoon diggante libyen yi ak Ablaye Wade ba mu dem Benghazi jàppale ji révolutionnaire yi gis ma ne ma xam nga diggante Libye ak Afrique neexul te Libye ala alin dana dellu ci am doole bu ñu jógee ci seen tolof tolof yi rek dana dellu ci am doole ndax fii ñu toog di wax malgré tolof tolof yi delluwaat nañu ci produire petrol lu tolloog la ñu daan produire bi révolution bi amagul te ñoom dañoo jàpp ni Afrique chef d'état yépp dañ doon jàppale Xadafi walla ñoo koy nëbbal xaalisam mu ne ma te yéen Sénégal ak lu Ablaye Wade man di def demoon na Benghazi moom rek chef d'état yi ci des yépp mere ko pour soutenir leen waaw loolu mënoo cee porox ndollu ma boole laag premier ministre ba fa nekk nga xam ni sama xarit la nga dem fa mu jàppale la dimbali la ba nuppi nga defar digganteem ak Sénégal ak Afrique la ma ko tontu mooy man dama bokk ci coalition sama réew sama parti ci coalition bi yor nguur gi la nekk lii nga ma wax neex na lool wante danaa ci waxtaan ak Macky Sall mooy président de la république bi digal ko mu defar diggante moom ak Libye defar diggante Libye ak Afrique ma ñëw waxtaan ceeg Macky mu ne ma déedéet yow yaa koy dox bind lettre ci loxo boppam bind ko euh, premier ministre libi ba fa toog boolem ak conseiller diplomatique am numéro un ne ko na nga organiser voyage u Idrissa Libye ma woo sama xarit yi Paris ñu woo premier ministre ba mu ne leen saa yu ko neexee na ñëw ma ni leen bu may ñëw kat ma Macky ne ma waaw lettre bi lu ma ciy bind ndax dama ciy bind ne yebal naa la ngay sama ndaw ci wetam pour dox diggante bi walla maa ngi profitoo ci xam gi nga ko xam ak dem ga nga fay dem pour ne ko loo ko wax maa ko wax ma ne ko bu ñaareel bee gën a méngoog dëgg bindal boobu mu bind ko ma dem libi la ma fa doxi njariñu Sénégal la puisque bu ñu Libye joxee pétrole ku koy jariñoo ci situation bi ñu nekk njariñu senegal la tooguma banque samay loxo damaa wax ni lépp loo xam ni jotuñu cee waxtaan ba tënk bu ci sama xalaat woroog bosam yéen journalistes yi ngeen laaj ma ko wala askan wi laaj ma ko sama xalaat laay joxe duma ma jéem a jeexi bosam Ah. wala ma koy rafetal mbokk yi ma fàttali ni yéen a ngi ànd ak seen rajo RFM ñuy dalal monsieur le premier ministre Idrissa Seck jiite parti réew mi euh, di maire bu diwaanu Thiès ànd ci ak euh, son staff ñuy rafetlu seen teewaay ku ci mel ni soxna Nafisatou euh, Diop naka noonu Thierno Bokoum Oumar Sarr Déthié Fall Fatou Seck Ousmane Thiongane ak soxna Léna Sène soxna Léna seen Fatou Sock wala très bien soxna mani sekk jee ko gënal moo ko gënal <laughs> soxna Léna it également naa am na ñuy envoyé leen xool ndax am na borom këram déet na jàpp ni groupe Futurs Médias ay coof rek a fi ne duduma kenn ñu jàll wala Babacar. mais mais li li. mais mais mais ah bala ma ko maye mbir xew de. <laughs> kon nag bu ngeen di ñëw yéen coof yi da ah. <laughs> ngeen fexe ba yor dara ah. mais ci li nga wax ni ba nga koo say loxo dem nga fi libi mission loolu xam naa sax a ah, euh, lu bees la lu ñuy lu waaw lu bari xamuñu ko ñu ngi koy doog a daloo nopp waaw ak yeneen waaw ak yeneen moo tax safaan gi mooy bañ déedéet ah am na yu mën a génn nag yu ko manut très bien léegi euh, dafa am safaan gu ci mel ni gu ci am ndax ba ñuy Macky Sall di séddale yi cër. Mm. da nga waxoon ni yow poste taxulaa jóg. gis nañu tamit euh, kilifa yi nga xam ne yéen a tolloo dayoo. Mm-hmm. te jàppale ko ba mu yegg si fii. Mm-hmm. ku ne amu ci coro ci loo jàpp ci biir palais ba ministre conseiller mbaa conseiller nangam. Mm-hmm. yow lu tax nga nangu koo liggéeyal te cër yooyu mu doon joxe. te gën a mën a sax yembal li nga bëgg. jëloo ca ci cër yooyu. jërëjëf euh, bu moom amoon na yéene jox ma cër loolu bu may waxal yàlla rek ndax daf ni ma dama bëgg nga ñëw ñu bokk ci gouvernement bi ñu bokk dem assemblée nationale ma ni ko mënumaa dugg ci sa gouvernement mënumaa doon sa ministre d'état mënumaa doon sa premier ministre yow taxoo li ñu séq taxul li tax mooy bi ab lay Wade jàllee ma daj li ma daj ci moom mu jaar ak man fi mu jaar ak man dama fësatu la yéene ci politique am ci kilifa gudul peuple sénégalais donc station yi ma mën a toog ñeent yi rek la conseiller municipal u Thiès conseiller régional u Thiès député à l'Assemblée nationale wala président de la République mu teg ca ne ma waaw Sénat bi nag sénat bi mën nga koo jël puisque boo nekkee ci biti nit ñi dañuy jàpp ni dañoo réeroo moo tax duggoo ci gouvernement bi wala dañuy jàpp ni dangaa toog rek di xaar ma fakastalu nga mu ne ma loolu rek laay bañ moo tax ma bëgg nga ñëw jël sénat bi bokk ma ne ko bu fekkante ne waa Thiès def nañ ma sénateur u Thiès yéen sa sénateur u APR yeeg AFP yeeg ñi ci des ngeen nangu maa fal président sénat cër bu bàyyi koo ci askan wi la mën naa koo jël mu ne ma bismillah ginnaaw bi am na ci yeneeni xalaat ba ni mu ko supprimer tey boo ko nangu woon wante <laughs> bu ma ko nangu woon coow topp ma lu lu gën a rëy coowul présidence ba mais danaa ko assume mm-hmm. lay tax ma assume ko mooy askan wee ma tax a jóg xam nga bi may wuy ji Ablaye Wade sénégalais yépp mere ma sama kër la tàmbalee sama soxna si si ma doon gërëm léegi ndey pend ak xale yi am na genn góor baykat bu nekk fële ca caafura daf maa musa a dàq benn bis ci tool yi ba dab ma na ma yow Idrissa lu tax Ablaye wat di la woo nga koy wuy fi nga jaar ak moom ak li nga daj ci moom mu def la li mu la def ngir doomam lu tax mu lay woo nga koy wuy ma ni ko ndigal Sëriñ Saaliwu Mbàkke mu tedd ma dal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem daf ma ni li tënk jullit ñépp la tënk innamal mu'minuuna ixwatun wa aslihu bayna axawaykum diggante jullit yu yàqu defare rek ab laaye sukk fii ne mooy sa waajur seytaane man na ko jaxase nañu leen seet na moom ci boppam li ñu la tuumaal gisu ko tubaab yi seetle nañ ko commission rogatoire internationale gisuñu americain yi seet nañu gisuñu waaw léegi daa bëgg nga dellusi ci keppaaram sëriñ Moussa Mbacke naawel ma fekke jataay ba mu ngi nii di ma dégg ne ma boo ko defee de dana bari ay jam-jam danga bari ñu la sikk lool wante biir na ma ni boo ko defee li ma xam ci Serigne saaliwu ak li mu doon ci jamono lu mu bari bari bari bari jam-jam yàlla mën na la cee defal lii mu la ñaanal maanaam defal la li muy defal doom ju nangul waajur ak taalibe bu nangul sëriñ Ablaye Wade jóge fa dem ci waawoon wax lu ni mel dem di inaugurer dispensaire bu ñu tudde waajuram wax sëriñ Abdou Aziz Al Ibn dama bëgg nga gunge Idrissa mu seet si ma ma dem wuy ji ko bi ma ko wuy jee li ngeen jàpp yéen ñëpp mooy post ma fa yóbbu wala ragal lu ma def luy dox sama digg ak wax ko dëgg bu jotee moo xew loolu lañ doon tudd diil loolu ngeen jàpp yéen ñëpp xarabu ma leen ci puisque mënoon ngeen koo jàpp wante ba ma egsee dama ko ne ñaar laa la yéene bi muy wax waxi post ak yooyu dama ko ni li ma la yéene mooy nga am ndam ci mission bi bi la yàlla dénk ndax xeex nga ko vingt 26 ans lu ne daj nga ko te lu ma fekke te sa xam-xam may na la ko nga am ci ndam ñaareel bi bis boo fiy jógee nga bàyyi fi way bu rafet ni ko Mandela amee ma ne ko ñaar yooyu ma la bëggal ñaar ñoo koy xajamal benn bi Karim Wade la tudd bi ci des ñëdd gi nga bëgg a ñedd nguur gi la tudd ma ne ko ñaar yépp dana la gàllankoor li tax Karim di la gàllankoor mooy cofeelu baay ci doom dafa rëy rëy goo xam ni du gis sikkam du gis ñàkk a manam xam nga ñu bari ñoo ngi xarabab la wax dinaan dafa wax ni way je dirais à ta mère bien travaillé dafa gëlëm rek ngir cofeel mais xam na xel ni Karim dàqu la jàng ci sénégalais yi ñu ko man fuufa fi ne xam na xel ne du financier bi fi gën ñu ko man fuufa fi ne may ma ma dikk rek yow it loolu dafa am solo waaw mais may ma rek ma eggale loolu bu ma eggalee Alassane waaw c'est important parce que temps bi la quoi sénégalais yi nee nañu yow euh, da nga seeti Ablaye Wade def waaye bien moo la wóolu loolu musul am waaw moo la wóolu dem man musumaa génn PDS yow musu ngaa gis Idrissa Seck bind lettre démission wala mu wax ci rajo ne génn naa PDS. mais dañu bëggoon xam est-ce que est-ce que mission. oui bi Abdoulaye Wade nekkoon ci kanamu réew mi. oui dañu ànd ak moom ngeen liggéey. oui pendant 12 ans ngeen liggéey ba nga am tolof tolof. est-ce que réussir na ko. oui wala wala wala réussir ko. xaw na koo réussir mooy li ma lay wax rek danaa ci ñëw bi ma ko xamalee ni ñaar ñooñu ñoo koy gàllankoor te moom mu jàpp ne rek defar na poste vice président en procédure d'urgence mën na ma ko jox. nangam nangam ma ne ko du ma ko laal ma ne ko ñaaree tax ma laal nga génne loxo Karim ci mbir yi ba nuppi nga wax ne dootoo doon kandidaa pour troisième mandat boo defee ñaar yooyu ma nangu koo jël nangoo nekk mbërum PDS ci élection yi bi ma xamee ni jëmu ci ma dem comité directeur man maa njëkk a bind Ablaye Wade bataaxal ngeen jàng ko yéen ñëpp ma wax ak constitutionnaliste u Sénégal yëpp wax ak Serigne Diop médiateur ne ko mbir mi loo ci xam mu ne ma sama position mayuma ma wax ko wante bu ma lay Ablaye Wade woowee ma wax ko ko wax ma it la mu ca xam ma dem France seeti ñoom Carcassonne ñu wax ma li ñu ci xam bi ma ñëwee wax ko Ablaye Wade mu nekk fi naa ma non premier mandat bi bokk ci ma ne ko gis nga du affaire u droit affaire u morale la ak pédagogie yow yaa indi ci constitution bi li wax ne ñaari mandat président waru ko weesu donc pédagogiquement yow da nga ko war a appliquer comme ça kenn dootul am werante li nga ci nam nekk fi naan bu njëkk beeg yooyu yëpp ay calcul d'épicier la ma ne ko li Mandela daj dajoo ko 27 ans la ñu ko tëj di ko toroxal ñaata mandat la def Mandela benn mais daraja ja mu am moo gën a kawe darajay chef d'état aujourd'hui Mandela yaram yu neexatul Afrique amatul kilifa daanaka male ngi tàkk RDC ngi tàkk feneen a ngi tàkk ku ci dégg ñu woo ci Ablaye Wade ku ci dégg ñu tudd ko ci ONU woowu ko CEDEAO woowu ko Union africaine woowu ko nga defe ni loolu laa ko yéene woon mu nekk fële ci Versailles saa yu xëyee jël téléphone bi di woo ay avocat naan leen fu Karim toll loolooy cëram ci Afrique loolooy cëram ak li mu doon benn xaritam muus na ni c'est le cerveau le plus puissant de Casablanca a Johannesburg. ak li mu daj. puissant ci lan ci defar ou bien ci puissant ci ñaar yëpp nag <laughs> oh xam nga ci ñaar yëpp mais mais mais mais mais xam nga yàlla yàlla dafa xarañ daf ni et par celui qui a créé l'âme et l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré à la fois son impiété et sa piété. réussit certes celui qui la purifie et est corrompu celui qui la corrompt et est perdu celui qui la corrompt. donc yàlla dafa xarañ ñaar yëpp la def benn waaye mus na ma ni Ablaye Wade nee nga xel mi rëy na wante dafa toogul bërëb waaye yu xëyee rek la taal si la wayoon rek. waaw monsieur le premier ministre. Euh, avec le maanaam maanaam pour pour jeexal ci mm, loolu. Mm. va vient bi ngeen di wax moo ma metti man musuma def va vient. oui man déglu ma rek. yow it man PDS laa mus a nekk. Mm-hmm. musuma am beneen parti de. musuma koo génn nit defal ndànk musuma ko génn de ñoom ñoo daan daje commité directeur de façon illégale et abusive dàq ma sama kër la bi may nekk candidat 2007 lan laa wax ci rajo bi ngeen dégg yéen ñëpp dama ne la première force politique sur laquelle j'entends m'appuyer est ma famille politique naturelle le PDS booba fekk na ñu dàq ma waaw bu ñu la dàqee nag nga defar mbaar mooy réew mi di fa sellu waaw ba keroog ngay jotaat ci PDS comme nag PDS moom egg na ci yàqu foo xam ni laal ko musiba la fi fi fi ñu toll doo jege doo laal. <laughs> bul ko bul laal bul ko jege. li ku caa di wax. waaw doo bul laal bul jege wante. wante defal ndànk. Mm. defal ndànk foofu ma leeral foofu ma leeral. dafa am ay gor ci biir PDS. yoo xam ni toog nga gañu fa toog yéen soxla jëli. waaw ñooñu dama leen di jëli de. ñooñu ñooy maire secteur yeeg euh, présidente fédération yeeg président section yeeg et cetera ñooñu maa defar PDS ak ñoom. xam naa ci ñoom ngor ak njàmbaar ak fit goo xam ni gisuma ko ci yeneen parti lu ne daj nañ ko ci Ablaye Wade ñoo fi indi marche ñoo fi indi naan grenade lacrymogène ñoo fi indi xeex njubadi ñooña la Ablaye Wade ak Karim Tour seen yalwaan donc ñooñu dama leen di jëli bu ñuy ñëw ci man ma koy nangu. Mhm. waxu defal ndànk rek. loolu du transhumance ah. ah bon déedéet waxuñu transhumance. monsieur le mhm. déglu ma waaw. déglu ma man ànd naag Ablaye Wade ci ay village yoo xam ni benn nit rek xamuñu fa benn ñu gaare oto yi mu wax ñoom Assane Gueye ñoom ñoom ñoom jàngoog gars yi ne leen di da di wër euh, euh, ñu ñu meeting. kalo bleu yeeg chauffeur yi <laughs> bu ñu tàmbalee meeting benn waay bu njëkk a seetaan si mu bindal ko kayit ne ko yaa ma fi toogal noonu la ñu tabaxee ah. donc loolu du ma ko sànni. leneen Assane woon. waaw du yow. waaw wax nga dëgg <laughs> euh, monsieur le premier ministre Alassane monsieur le premier ministre. c'est vrai euh, yow nee nga defoo ay va et vient. non musuma def va et nga ko mais dañ jàpp ne en 2007. bokk na ci loo xam ne yow gagné woo élection présidentielle. le fait que ngay dem di dajeek Abdoulaye Wade. absolument est-ce que ak le recul. oui. jàppoon ne lool bokk na ci loo xam ne moo tax nga perdre élection 2007 nga waroon a toog fi Macky Sall toog. waaw absolument loolu laa jàpp loolu xam naa ko bu wér a wér dafa bokk ci xeeti jam-jam yi nga xam ni. Hmm. Serigne Moussa nee woon na ma boo jëfee ndigal lii da nga ci jot yooyu jam-jam ndax sénégalais la ñu jàppoon mooy ah Idrissa kat poste la wuti daa bëgg a doon vice président wante léegi. gis nañu ne bi ñu taba taxawalee post bi ba ni ko Macky di génnee tooguma kon taxuma woon a jóg de. waaw defal ndànk ma teg ci ne dañu ne dafa amoon lu ma ragal lu ma bañ Ablaye Wade xam xamle ko wala nangam ba tax dootuma ko ñemee wax dëgg maa xuus ci ay sàndarma ma ki alkaateem fekk ko biir paleem comité directeur yëpp toog nii ñu tooge ñoom ñëpp dal sama kaw ma jóg taxaw ne ko amoo droit ci troisième mandat bul ñiit nguur gi ñii di la wax ñii ñëpp ci sànq la lañ la jëmee ci miir bi nga jëm puisque gëmloo la ni fii nga toll mën ngaa gagné te études yii ma yor wan ne deux sénégalais sur trois sont contre toi erreur la ma ne ko bàyyil bul ñiit defal ni Mandela benn mandat la am puisque y a une vie derrière la vie de chef d'État gis nga Carlson euh, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines dama Johnny Carson bi ma tajeeg dajeeg moom New York daf ma wax phrase bu ma jàpp daf na ma legacy is better than longevity maanaam li ngay bàyyi sa ginnaaw moo ëpp fuuf solo yàgg gi ngay yàgg ci nguur gi waaw li ngay bàyyi ci histoire legacy moo ëpp doole téeméeri junni yoon yàgg gi ngay yàgg ci ci ci pouvoir xam nga ab lay wàdd munoon naa bàyyi lu rëy même même xërëmam bi yàllaam ji mu def fii euh, nu mu tudd monument bi euh, ñu bari ŋàññ nañ ko mais man naa amali njariñ ëllëg Sénégal am na sama benn xarit daf na ma doomam fële ca Suisse seen classe ñu ngi leen di jàngal ne monument bi gën a kawe ci àddina bi Sénégal la ne turu Sénégal wa génn foofa njariñ la waaye diine nangu ko diine ji nga xam ne. waaw kay waaw looloo tax da da xërëm ak ñàkk waxtaanam moo ko yóbbee mu defe ko ni mu ko defee mënoon na koo def mu am booba dayoo te du ci perturber du ci tooñ ñi ko jàppe yàlla wala xërëm. mais monsieur le xërëm bi wax nga ko. waaw ah, li ci l'islam wax. waaye sénégalais yi problème bi de xërëm bi. Mhm. mooy ak naka lañ koy defaree. voilà réew mi. voilà bu ñu yàq. voilà loolu moo ëllëg sénégalais c'est ça xam nga loolu laay wax. mais attention hein xam nga euh, Macky Sall la ngi waaj dajale fii francophonie n'est-ce pas sommet francophonie bokk na ci yu ñu njëkk xalaat. defar beneen palais des congrès bu bees yàq la d'ailleurs tubaab yi joxe xaalis bi am na ci kuma ni bett nañu yàq la puisque hôpitalu Fatick bee pareegul kenn fajoogu fa dalal jàmm ngi nii di xaar fii ci géejawaay pareegul hôpitalu Ziguinchor baa nga nee pareegul ngay tabax palais des congrès te grand théâtre bi fi Ablaye Wade nekk fi yàq la donc am na yu gën a war yooyu lañu ñu war a lijjanti dëgg googu nag moom duma noppi ci di ko wax mu neex ak mu naqari waaw sànq ci waxtaan bi nee nga da nga demoon bëggoon xam loo indi Libye loo indaale Sénégal waaw loolu pétrole loolu am accord loolu xam waaw euh, foofu non non non euh, loolu Macky Sall dana ci egsi bu bu bu sottee mais li ma li ma doxi woon daal ci ci mission bi ñetti mbir la Euh, bi ci njëkk mooy defar diggante bi pour que libyens yi bañ a génne seen bopp ci Afrique ñi def révolution bi bañ a génne seen bopp ci Afrique daal di ne africains yi daal ay xadafiste lañu ñoo ko daan nëbbal xaalisam ñoo ko daan nax et ñoom ñoo nekkoon mercenaires yi ñëw fii di ñu bombarde di xeexal Xadafi loolu d'abord raxas ko ba nga xam ni xol yi dana booloowaat li bi xam liy cëram ci Afrique ba noppi puisque bokk na ci réew yi arab yi gënoon a jege Afrique quand ñaareel bi ma ma ne ñett yëf soxla nañ ko ma waxtaan ci ak euh, yi xam nga yàlla dafa dogal bi Sénégal participer ci guerru Koweït bi ba suñu ay soldats dee fa ci accident wu avion yaa ngi koy fàttali. George Bush bi ñuy def reconstruction kowet dafa jël contrat yëpp jox ko benn xaritam bu ko doon jàppale américains yi ñoo jël contrat yëpp ñoo waroon a defaraat dëkk ba. yàlla dogal sama benn professeur bu nekkoon Princeton nekk sama associé ñu bokk entreprise ACG Afrique kooku xamanteeg waa jële ñu waxtaan ma ne ko waaw ñun Sénégal ñàkk nañu ay bakkan foofu comme ni ngeen ko ñàkke yéen ngeen di defaraat lu tax du ngeen ñu ci boole mu ne ma ah kay mën nañ leen cee boole wante xanaa subcontracting maanaam sous-traitance rek lañ leen mën a defal ma ñëw ñu waxtaan ci ak gouvernement bi ñoom Ousmane Ngom ak euh, ñeneen ñoo nekkoon defe naa ministre du travail ñun ñu defar projet pour yóbbu ay sénégalais ñu dem euh, kowet bokk ci liggéey ba sama cabinet moo yoroon liggéey boobu ak ñoom Cheikh Tidiane si mi nekkoon ministre de la justice ci sama cabinet la nekkoon donc euh, bi nga xamee ni dem nañu ba lijjanti loolu war a yóbbu ay sénégalais sénégalais yi amuñu këyit. xarañ nañu lool ci liggéey mais amuñu diplôme mu ne ma ah bu ngeen amul diplôme ñun diplôme rek lañ xam ma ne leen ñii nag amuñu diplôme wante dimbali leen ma rek ngeen essayé leen di ngeen ci gis njariñ ba ñu leen yóbboo ci noonu mujj gi ñoom ña ñu jële woon ay Philippines ki ay Chine ki ay fu kenn xamul ci ci chantier sénégalais yi lañ doon dem di seetaan c'est-à-dire bu sénégalais bi defee école ba ba peinture ko ñeneen ñi fa lañ daan jële ji exemple bu sénégalais bi defee plomberie wala électricité ñeneen ñi dañ leen di woo ne leen dem leen sénégalais yu former leen léegi bi Libye bi taxawee ma xam ni guerre amoon na fa danañ ko war a tabaxaat ma dem ne leen waaw léegi man damaa bëgg ay sénégalais jóge fii ñëw liggéey fi ñu xariñ ñu xarañ lañu tubaab yii français yii ak américains yii lii nu fi bëgg rek laa fi bëggal waa Sénégal ak waa Afrique ñu ne ma ay ay ca ay la yoon ma ne leen déet ñaareel bi ñun Sénégal amuñu pétrole dañuy jënd pétrole bi te mu ngi ñuy bëgg a rey yéen yéen a ngi jaay 60 cargaison par weer tànq leen ñu ci benn mbaa ñu ne waa nañ ko waxtaane ma ma bo wax ko Macky Sall mu daje ak premier ministre ba fële ci Addis Abeba ñu waxtaan lañu waxtaan. Mm-hmm. loola loola nag mënuma cee tàbbi. mais daal loola bokkoon na ci li may topp ñetteel bi. Mm-hmm. ma ni leen yéen. dangeen a am alal ni ko Algérie amee ni ko Angola amee Afrique bala ñu fee jég di dem di leb banque mondiale ki FMI ki yooyu yéen yéen ñu war a njëkk a lebal puisque yéen Afrique jag mooy seen mooy seen sac donc euh, seen investissement yi ngeen di def ci biir Afrique ñu ne ma way ni ko Xadafi daan defe dafa yàqu moo tax euh, ñu koy seet mais buñ ko seetee ba mu set. incha allah danañu bàyyi xel ci ci Sénégal donc yooyu laa fa wuti très bien ma fàttali mbokk yi ne premier ministre Idrissa Seck la ñu àndal ci RFM ci bëccëgu tey gi nuy màggal at bu njëkk bu nekkinu Macky Sall euh, ci boppu Sénégal ñuy jox kàddu gi léegi suñu naatango soxna Sophie Baro bu observateur moom it mu jibal laajam euh, Sophie bisimilah. jërëjëf El Hadj Assane euh, le ministre monsieur le premier ministre maa ngi lay nuyu. di nuyu sa collaborateur yi nga àndal. Euh, di la dalal jàmm fii ci Futurs Médias euh, man damay desuwaat tuuti ci. sa va-et-vient yi seewaat. <laughs> waaw maa ngi jégalu terme parce que bañ nga terme dil bi. c'est ça nee nga dil mais nee nga jam-jam la. par rapport ak sénégalais yi ni ñu ko jàppee. est-ce que tey jii mën nañoo jàpp si à travers say kàddu que ne da ngay rëccu euh, aller retour yooyu nga doon def ci wàdd. waaw d'abord du d'abord du aller retour te rëccuwuma ci dara bu ma ko waroon a defaat que man du ma rëccu jëfe ndigal loo xam ni mu ngi bàyyi ko ci Cheikh Salihu Mbacké bàyyi ko ci Serigne Mansour aw lu ma ciy rëccu. c'est vrai que politiquement am na lu mu fànq wante dafa am ñaar yoo xam ni jullit sañu ko jullit sañul yàlla xañ ko mu saalit sañul yàlla may ko mu beew li kay la tasaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum c'est-à-dire afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous échappe ni n'exultiez pour ce qui vous est donné donc du ma xañ ba ma saalit du ma may ba ma beew Sëriñ Tuuba way na ko yaa rabbi in axtaytani fa shukru wa in mannaxta faridan wa sabru boo ma mayee ma sant boo xañee ma sant sog a muñ donc dans les deux cas conséquence bi le fait que nekkuma président soxaluma bu jotee rek yàlla def ko aw ma ci sikki sàkk mhm. maintenant li ma bañ mooy ngeen tudde ko va et vient parce que va wu ma vient wu ma <laughs> ndaari ji waa ji doon tudd falaa toog Khalifa Diakhaté man nga ndaari euh, euh, li ma li ma la li ma la bëggoon a laaj li ma la bëggoon a dolli si laaj bi mooy ñu ñu ngi rafetlu ni nga woye ni nga wëyee ndigal sa diggante ak Serigne Saliou Mbacke ndax keneen suñu nit ku mu joxoon digal da nga koy woyee. absolument waaw ndax Sénégal noonu lay doxee. tout à waaye ndax yaakaaroon ni jot na yéen ñi am cër. ci yore euh, euh, jëm kanamu askan wi. Mm-hmm. ngeen aussi am rôle sensibiliser suñuy kilifa. Mm-hmm. ci bu jotee. Mm-hmm. ñu war a leeral lëf. ñu leen di ñaan njekk ngeen war leen leeral ni. Mhm. mbir mi àdduna bi ak euh, maanaam politique bi. Mhm. wala yorin bi mhm. nii la war a tëddee. te ko ci argument yoo xamante ne lu yanu maa la ndax kilifa. fa muy sukkandiku ñoom ñooñu notamment. mooy ci wàllu diine ci wàllu téere. kuñ si waxit lu yanu maanaa ci luy jëmee aw askan réew dina ko xam. donc ndax jotul yéen politiciens yi. yéen suñuy kilifa. ngeen noppee ngeen dogoo euh, di wëyee ndigal aveuglément. tey waxtaan ak fa nga xam ni fa la ndigal gi di bawoo. Mhm. voilà. xam nga yow laaj bi ngay laaj da nga koo ñemewul. Mhm. moo tax laaj bi jafe. lu mu wax dafa waaw dafa bëgg a wax. maanaam yéen man dégg naa ko bu baax. yéen politiciens yi doon bàyyi sëriñ si toog seen bu ñu toog. waaw seen liggéey. waaw ngeen yeere réew mi parce que ñu nekk ci réew mi. ñëpp du ñuy du ñuy. Euh, waaw yi euh, xamante ne ay musulman lañu. c'est ça Sénégal laïcité la. voilà voilà waaw laaj bi leer na. dafa dafa diis rek génnin wee diis. ci ci ñëpp nag ci wante defal ndànk. dafa am lu ma la bëgg a leeral. sëriñ yooyu ngay wax du ñu ñu digal lu dëppoowul ak téere bi te téere bi ëmbul lu dul njariñ téere bi ëmbul lu dul lu jub ëmbul lu dul lu baax ëmbul lu dul njariñ wa nunazzilu min al quran déedéet premier ministre bu fi jaar ministre bu fi jaar amoon na fond politique loolu lu légal la lu loi bi bind assemblée nationale voté ko ñu signé ko loi bi terewul sax nag mu tàbbi ci patrimoine nu nit loi bi terewu ko wante dafa jekkul moralement oui. moralement et politiquement jekkul jekkul puisque li ko tax a jóg donte loi bi terewul a nga dugal ko ci sa patrimoine li ko tax a jóg mooy ña ngay xeex fee ca Casamance munoo bind ci budget bi ne yaa ngi dimbali soldaari Guinée Bissau ya yalay jàppale pour que bu rebelle yi dawee def ñaawteef fii daw fa ñu mën leen a kar doo ko bind doo ko wax fenn kon réew mi tas wala ab xalif général kat feebar na war nañ koo évacuer ah mbir xew na fokk nga am noo ko saafara puisque doo fi nekk naan nanu xaar dossier bi jaar trésor ak nangam nangam danga ko cay faj ak yeneen ak yeneen mais ay Ablaye Wade ma may du lay ci kenn Macky Sall la ma may du lay ci kenn. waaw monsieur ndax ndax Macky Sall. Mm-hmm. mu ngeeg ay fonds politique am. mu ngeeg ay fonds politique am dafa signé loi ci décret yi mu njëkk a signé la bokk 8 milliards. laaju Taïwan bi xam nga man duma laajantu duma laajantu de man auditeur la j'ai travaillé pendant 15 ans chez Price Waterhouse la plus grande firme mondiale d'audit xeetu entreprise bu ne càmbar naa ko fii ci senegal ca Europe ak ca Amérique muy banque Citibank ñii maa leen yoroon BCCI maa leen yoroon Sonatel gii audit naa ko caisse de péréquation bi doon jaay ceeb bi maa ko privatiser ba ca Côte d'Ivoire maa ko defar loolooy sama liggéey du ma wax dara kii ne soit documenté dara lu may wax rek boo gasee ma génn kayit du ma waxantu dama wax ne question laa posé xaalisu Taïwan boobu ñu wax ci ban compte lañ ko njëkk a def nan la fa jógee ñëw senegal sëgam jóge na fa ñëw Sénégal loolooy sama laaj de. li wund laaj bi ëpp solo nag. waaw li ko wund mooy leeral garab lii ngal garab gi mu ëpp doole. waaw xam nga sabab bi mooy njub rek. Hmm. njub daal weesuwul li ñépp moom nga bafa hmm. dama wax ni ñett rek la nit mën a jote alal liggéey ñàq wala ñu may la walla nga fopp loo moomul. Mm. mbiri Taïwan yi boo ci noppee ndax doo doon li tubaab di wax complice. ci déet déet déet mm. ah, bu ma naroon a doon complice du ma ko laaj. Mm. dafa am foo njort ne fu la njëkk a tàbbi dafa am waaw fan fu fu mu doon foofu. déedéet du la ko wax. ah da koo gis déet du la ko wax. Mm-hmm. Ah, waaw ande am na fu mu njëkk a jaar. fan la jaar. waay du la ko wax. dama laaj ko ñi ko yor. luy may wax gi procureur woo la wala. ah waaw loolu de bu ma woowee ma wax ko. li waaw waaw waaw non xam nga. xam nga fenn rek la la droit de réserve di teggee ko. Mhm. droit de réserve xam nga wax dë lan la def ci ci rapportu IGE IGE bi. déclassifié da koo déclassifié daal di ne sañ ngeen cee wax waaw loolu président sañ na ko. ne sañ ngeen cee wax sañ na ko <laughs> fonds politique yi ñuy wax uh-huh. fonds politique yi ñuy wax yoon dafa wax ni amul comptabilité kenn du ci def comptabilité maa fi maa fi njëkk a indi mm-hmm. yor fonds politique jële ku nekk banque centrale teg ci sama wet mu nekkoon Price Waterhouse ma jox ko ko ne ko lu fi génn na am trace waaw amul trace dafa ndànk bañ a am trace damay laaj te am trace ak génne trace du benn de mais trace da koy am wa kulla shay'in laa la wax ahsaynaahu fi imaamin mubin loolu boo jàngee yaa oui monsieur le premier ministre kii ah, ah, ah, Antoine Diouf la dama koy wax ci bible <laughs> monsieur le premier ministre ah ci jàngu bi la ci jàngu bi la bokk monsieur le premier ministre <laughs> non non non damay damay pare rek damay dama bëgg a leeral foofu monsieur le premier non mm-hmm. téere bi téere bi benn la mm-hmm. téere bi téere bi benn la téere bi benn la amul amul différence mm-hmm. non li li ma la li ma la bëgg a wax rek mooy de toute chose nous conservons trace dans un registre explicite c'est tout. diisaayu yu Sall ci wàllu koom-koom liñ ne am na ko yéem na la ni la Karim Wade di wala yéemu la Macky Sall ne am na ko ci alal. ah yor na si tuut <laughs> Euh, malheureusement il faut que ñu daal di jeexal waxtaan wi xaaj bu njëkk bi. Ah. Antoine Diouf euh, <laughs> nga baal ma vraiment <laughs> maa ngi jox directeur bu jeexal ko laata Thiès. ensuite ñëw ci wàllu France. non en fait dama bëggoon juste une précision parce que xam nga euh, fonds politique c'est vrai. Mhm. amul comptabilité wala boo gisuñu duñ gis comptabilité. mais dafa war a am traçabilité comme on dit parce que xaalisu askan wi la. waaw mais amul donc maam la. waaw mais suñu yaay la suñu impôt papa. est-ce yaakaar nga ne mm. pour tout ça war nañ ko di fooye di ko passer passer di ko joxe nu leen neexe quoi yéen non loolu war man foofu foofu foofu lay waxee monsieur le premier foowe pasar pasaree warul ci benn xeetu alal sa alal ji nga moom liggéeyal ko sa bopp yàlla nee na ne le gaspille pas car les gaspilleurs sont les frères des diables gaspiller moom baaxul yàq voilà euh- musiba mais mhm. loi bi li mu wax mooy kumpa lay doon président de la république rek mooy xam li ci xew loolu la loi wax wax na ne kenn du ko laaj kenn du ko ni justifier kenn du ko ni vérifier kenn du ko ni nangam loolu la loi bi wax. ndax waruñu réforme mën nañu ko réformer jàpp naa ni lu ñu mën a réformer la. Mhm. daal di ciy boole par exemple ñaari nit. président assemblée nationale wala président euh, taskatu xibaar yi ne président. booy dogal loo xam ne lii ci lu njariñu askan wi la na nga ci diisoo ak ñaar ñi wala président cour suprême wala nangam nangam mm-hmm. pour mu leer ne alal ji moom demul ci sa poos demul ci sa gafaka mais mu ngi dem ci askan bi voilà ah, ah bu nu bokkee monsieur le maire juróomi minute moo des ah. juróomi minute moo des ci onze heures mhm. mu ne monsieur le maire nga xam fu ma jëm euh, rapidement Thiès ndax xam naa dinañ ma mere suñ ci waxul gasal nañ ñu fépp ne ay kàmmi kaña ah. suñu euh, cinéma amitié bañ jotoon am mhm. taaral ko loolu ñàkk nañ ko daanaka ñu ngi ci defar gi chantier mhm. champ de course kañ la ñuy waa Thiès ci lu promesse électorale liste ou kañ la ñuy am defaraat gi ci nu mu gën a gaawee laata ñuy def pause bi def publicité mbokk yi déglu RFM ñëwaat ci parti en français. waaw dafa bokk ci xeeti li ma Macky Sall dig ñu waxtaane ko ba fas ko bokk na ci eggale chantier Thiès yi daal wax na ma ko waxati na ma ko joxe na ci ndigal ci sama kanam téléphoné ministre ma dégg mu jox ko ndigal ci na chantier Thiès yi egg ni mu ko defee ci saafara mbiri baara taal ndax injustice yi mu daj entreprise am bu rëy boobu nga xam ni da daan passé Thiès ba mu génnee polytechnique di ci liggéey si ci ab tubaab yàlla dem ba tubaab ba wóolu ko jaay ko entreprise bi mu nekk fierte ci askanu Sénégal ak ci Afrique mu yóbbu ko it fu kawe Ablaye Wade ñëw màbb lépp ne ko da ànd ak Idrissa mm-hmm. mu muñ ko ne leen donte da ngeen may rey di ma dugal kaso lii ngeen ma bëgg a wax loo te du dëgg duma ko wax Macky ñëw ne injustice boobu danaa ko saafara. Vieux Sanjiri Diop mii ak Cheikh Ndiaye ñii ñaar ay commissionnaire lañu woon ca police. Mhm. bi ñu bi bi ma Ablaye Wade di génne dañoo ànd ak man dañ ne teraanga du leen fa ba. ñu fekk leen ndar Assane Ndoye yeble ñu jàpp leen nangu seeni fital nangu seen i dagg seeni i salaire Macky ne ma danaa ko saafara woo Paate euh, Seck mhm. ne ko na na saafarawu defagul ah defagul de wante jot na ndigal de yeex na nag as ndax ndax kuy joxe dépense moom yeexali mbiram baaxul ak yeneen ak yeneen donc chantier de Thiès yi na ci seen xel dal mhm. bu Macky delluwul ginnaaw ci li mu ma dig dana pare. li war a laaj mooy dama gis yenn ambition yi ngan di nga am def de Thiès waa ay sa ay savant. ay laata loolu suural kàmb yi. waaw incha allah Assane. <laughs> merci monsieur le maire ñu ngi koy gërëm bu baax. gërëm tout le staff euh, de monsieur le président du parti mi